What up guys, what up guys, what's up everybody, summer guy. <laughs> Before going faster, allow me to reintroduce myself again. I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa, You see my town. Jadi ko my Pap J, Ibrahim Mandaw, Mustafa Maner, Dagoud from Belgium. Jadi ko my uh, Euh, comment dirais-je euh, Amadou Dame Diagne suma chéri Coumba ma Mamadou Fall naam seen ak jabaram naam seen du communiquer quoi mais xam nga kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee ndax ña la bañ quoi naam seen di ko may Black Master moo Daymo Mollah Morgun naam seen di ko may gars yi bëggee Malathion TV yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp tu sama gars yi tey euh, temps dama xaw busy nag quoi dama xaw a jàpp moo tax fan yëpp defuma vidéo sax bii sax du gudd damay def bande lay doon rek waaw si waa suufu ndenkeleer yi tu ak Babacar Ngom tu vois def na de presse Euh, indi ñu mu bëgg indi di wax xam rek mooy loolu li may wax toujours xaalis moom boo ko amee c'est le pouvoir quoi tu vois gars yi dañ lay ragal duñ la bëgg wax dëgg tu vois mooy loolu da ngay bëri ay cogg quoi te conférence de presse bi noonu la demee woon quoi mais naa si jël quelques questions rek tontu ji tu vois après nag développé su ma amee jot naa développé xam naa demee non après demee moo gën a wóor ma développé gën a dugg deep ci si si sujet bi quoi tu vois léegi fi may waxee mooy moom Babacar nee na tu nee na euh, avant avant lii kenn xamul woon Ndenkeleer quoi euh, Ndenkeleer était méconnu de la population mooy parfois dama naan alal du seexlu quoi ça veut pas dire que tu es riche et que tu es intelligent tu vois alal xamul jàmbaar quoi tu vois parfois da nga gis koo xam ne tey jii tu vois alal du seexlu quoi da nga gis koo xam ne tey jii liggéeyu dara lu koy may alal tu vois yàlla may ko mu jeex nga gis ko xam ne tey mi ngi yenu ay saako ciment suko sim des tonnes de ciment ñu koy fay saako juróom amul dara donc alal xamul jàmbaar alal ñi gën a sonn sax si àdduna bi mooy ñi amul quoi tu vois donc euh, mais dañuy nangu ndogal rek parce que yàlla mooy maye boo ko tegee si yàlla rek day féex léegi mu ne moom avant loolu noonu ñun xamuñu woon euh, kan mooy euh, lan mooy ndenkeleer tu vois donc là ça c'est une question idiote question idiote la il a fallu que mu laal suñu pétrole pour après ñu xam la mooy Frank Timis donc ça c'est une question folle tu vois yow yaa laal suufu Ndingler moo tax ñu xam Ndingler parce que eux ils dans leur coin paisible ah ñu ñu ñu ñu ñuy vivre foofu paisiblement tu vois ba yow bi ñëw tey jii indi safaan indi problème quoi parce que li ñu

beneen bi mu ne man bi ma nekkee kii dama dund lu metti pour nag xoolal gars yi yëlma quoi ba victimiser wu quoi di wax crucisme quoi nan dama dëkk géej waaye foofu noonu xaw ma Las Palmas xaw ma foofu noonu benn néeg laa amoon dëkk wax sama jabar jékki-jékki sama yaay feebar ma xëcc sama yaay jékki-jékki sama rak feebar ma xëcc sama rak mu def ko benn genre orpheline quoi di wane ne moom history from the bottom now we on the top quoi you know what I'm saying from from nothing to something from zero to hero pour gars yi ne kat self made man la quoi you know what I'm saying gars yi kii dafa ñàkk a xaalisam quoi pour toucher affaire mais là yow da ngay tomber dans ton propre piège ba pare yow à partir de loolu noonu man du ma la mën a comprendre quoi pour quelqu'un bi nga xam ne tey jii moom he started from the bottom il est parti du néant du dund lu metti jël benn néeg bokk ak jabaram ay doomam ah ak ay yaayam dund loolu yëpp noonu quoi donc kooku noonu xam na lan mooy xam na la tey ji lan mooy lan mooy métit lan mooy bëgg am dara amoo ko kooku xam na la mooy tey ji néewal doole ndax tey ji am na yoo doon bëgg tey ji bu dee am na gel boon na boon tey ji nit ëpp la xaalis néewal la doole am na loo doon bëgg tey ji benn affaire boo bëggoon teg nii mais sa doole matew ko léegi yow yow yow cette personne nga jaar foofu yëpp yaay ñëw fekkaat ay baadoola no ne nenke leer nga teg leen problème boobu noonu baaw xam ngoom yow xanaa nga am nga def dala da nga ko jàlloon pour maanaam tey ji gars yi am am am yërmande ci yow mais loolu c'est une affirmation la boo xam ji waroo koon wax xam nga tax waroo koon wax parce que yow ji ak foofu nga jaar yëpp yaa yow li nga jaar foofu yëpp dund lu metti loolu yëpp yëpp yëpp yaa mën a ñëw tey ji ñëw teg ay baago loolu yi donc yow tu n'as pas appris de ton passé et c'est dommage it's a pity tu vois donc bi ngay wax noonu gaay waron waroon ko laaj mais c'est dommage que journaliste yi bu ñu comme xaliss du ñu am fit quoi tu vois dañuy dañuy dañuy ragal quoi parce que tay ji manam euh borom xaliss bo nekké nekkee borom daraja entre guillemets limay may wax daraja bu entre guillemets parce que man li nit ñi waxee alal man duma ko alal parce que ñom liñu jappé alal man jappé mako alal tu vois ñom dañuy jappé alal moy auto yu rafet nga tabaxal nga sédiment affaire yooyu nonu quoi lolu du dara du dara ku la ne maa la ëpp alal nekk jëndal dé mënoo jënd dé bay faal té ñu ëppalé won toujours ñu ngi fi ci suuf bu dee alal ngay jaay xadafi mën a ko ëppoon mi ngi ci suuf bu dee xam-xam Cheikh Anta Diop mi ngi ci suuf donc fii rien n'est éternel yàlla rek moo éternel nguuru yàlla kese éternel am am yàlla rek éternel léegi loo fi gis day day day day rëcc donc journaliste yi man ko tey ji waa yow noo mën a jaaree foofu yi ba pare ñëw di piéti nii di piéti nii piéti ndax soixante-quinze hectares tu donc j'ai été déçu quoi pas appris de ton beneen bi mu ne lan beneen bi mu ne Abindour kino ko mi yalla ya xamni deggu ko parce que affaire non ka barki alquranul karim bot suma kamil timon fi ma xet ko waxo deug babakar ngom abindu lol mu se ko yono deug ko par force deug nga deug ko ba deggato ko nan yusu ndur dama o oh, mi man ko no abi sama sœur la affaire hypocrisy waxo deug nga bal waxo deug li abindu def non deug ko bu baax motax nga tontu ko ya pas de fumée sans feu ay no umo sin fuego lu espagnol du dox ay no umo sin fuego ya pas de fumée sans feu abindu deug ko Atepa dégg na ko yéen ñëpp dégg ngeen ko waaw bandiw travel first you know what I'm dégg ngeen ko bu baax dégg ko moo tax nga ñëw di toog naan non li ma kii Youssou Ndour moom tu vois moom peut

na ko kott peut être tu waaye man kottoo ma fen damay wax ak yow Babacar Ngom donc foofu waxoo dëgg Habib Ndour mu wax dënk bu baax ah dënk bu baax peut être da nga koy jéem a faire mais bu la saagoon di nga tontu wala bu saagoon sa di nga tontu tu vois donc dañu bàyyi yooyu gën a def noonu ko sax parce li ni nii barke rasulaay dégg nga rasulaay dégg nit ñi ngay jéem a kon bul jéem loolu tu vois beneen bi may lu tax woo leen waa ji ne ko yow lu tax ngay jéem a lu tax ngay jéem a comment dirais je ngay jéem a ko jox paa bi di ko jéem a lu tax affaire yooyu noonu mais laaju leen ko ko si waa ngeen koy laaj muy wax ay cursusam di wax di gaaruwaale ay Bassirou Diomaye Faye naan am na koo xam ne ne te fa lay prononcé loolu noonu de Bassirou Diomaye Faye parce que moom dafa ñëw isam ne la Babacar Ngom dellal suuf nenko wax ay ay kii nii mais nga wax naan kooku kooku a de prononcer son nom c' est pas tu vois te il clean kenn mosu ko dégg ci benn litige fekkul ay baadoolo mu jël seen suuf tu vois nit da wax nii nii nii man nii laay wax ak yow Babacar Ngom nii man ragal ma dara tu vois on ne vit qu'une fois on ne on ne meurt qu'une fois dund benn la bu ñu dee ñu suñu suñu notre papa fële amul benn problème mais dëgg dañ koy wax mais naan kooku may bañ a tudd naan kii tànkal local yi joxe ban local Pastef Pastef doxatu gëléem kaw la jëm bëri Une politique zéro franc politique zéro franc concept donc on n'a pas besoin de mener combat pour accéder GFR non non non non non Sénégalais yi confiance bu vous Ça, décrédibiliser affaire pas f paysans communauté a de voix la mu mais local Pastef tànk kanam la amul tànk ginnaaw get ready for that xam leen ni yéen ñii yow baaxoon nga boo nekkee ci litige nga nekkee ci litige tant que magistrat wu euh, Macky Sall la mi ngi am kenn du la audité mais wóoral na xool si magistrat wu euh, Pastef bu ñu faloo si lañ lay audité mooy nguuru Sonko te boo demee sa jomaay mooy affaire donc si tu paies pas les impôts t'as intérêt à les payer parce que demain fera jour Pastef day falu par force bàyyi force gars yi yeewu nañ nit ñi yeewu nañ jeunes yi nañ bu la neexee nag avec l'aide de la France ak ñi ngeen sàcc def seen i magu yi naan lii ak lii ni quoi beneen bi may gën a dee nag mu naan génn këyit naan damay bàyyi yoon def liggéeyam waaw damay bàyyi yoon ban yoon ban yoon mooy def liggéeyam Babacar ngoom yoon fu mu yoon këyit la xam mais këyit yu leer Babacar Ngom toujours nga gis si ku am doole ku am doole fekk benn baadoolo nekk naa la tëj mu ne baadoolo bi xam baadoolo bi nekk xam fa chier ngeen baal ma ci terme bi mu dem jël un médecin corrompu médecin bi defal ko certificat 21 jours ñaata nit dañ tëj ci ay certificat ah seen kii nu ko xam noonu la noonu ko gën di ko kiiwee nag xam nu ko fàttali bi mooy certificat yooyu ñu bind médecin yi bind di ko délivrer rek jox la 21 incapacité de travail en 21 jours ñu ñëw médecin bi war a présenté ko au juge bi juge bi mi ngi nii certificat médical bi ngi nii mi ngi nii 21 jours yaa ko dóor boobu ngay wax dëkk boo xam ne y a un médecin bu fi ne ah, di exercer pendant des années di def ay test test corona ñu ne médecin la xëy ñu nekkatul médecin dëkk boobu ngay wax kii boo xam ne a fallu euh, y a deux ans si ginnaaw ñu jël ay ah, plus de quatre ndax lan ay ñoo xam ne faux diplôme la ñu am defaral leen kii nii maanaam ñooñu faux quatre cent mètres xaw ma ñaata ñu jël euh, kii bi promo bu yëpp ñu éradiqué ay faux diplôme faux diplôme la ñu présenté dëkk boobu ngay wax kii dëkk boo xam ne day yow nga ñëw domaine national nga dem ak sa branlon ñoom Macky Sall doo Macky Sall ñu defal la titre foncier ah jël jaan bu amul dangar def ko dangar pour yow nga mën a mattañ waa nga mën a matta waa Ndenkeleer ah jox la sa kayit nga ne kayit ngay kii non bu wax kayit da toog baal papers bu wax kayit fii kayit amu fi njariñ kayit amu fi njariñ corruption la doole bu wax kayit kayit boobu nga baaxul parce que sa loxo yegg waa Ndenkeleer yegguñu fa yow da yor ay milliards yor ay ay nen sa saaku nen yooyu may ak yeneen yeneen ñii seen i kese la ñu yor ak taw yàlla bi doon toog baal mais some conscious li ba man naan you run running away running running away but you can run away from yourself ku sa xel di mbugal foo taxu dalay jafe boo tëddee Babacar Ngaw doo nelaw empire yokk ko soixante-dix ans Babacar Ngaw mais du ma rey nag bu neexee ne dundal cent ans mais soixante-dix ans bu tegaatee dix sax yow doo mënti lekk kilo yàpp wala liibar gisee si bi da nga dem di fajo ji ah mais bàyyi la sa doom lu lew sama gars yi la sa doom lu lew sama gars bu ah, ngi pare gu ma ci de parce que dëgg ma lépp sax dama li dama la def xoolal dama la defal teaser rek bande naa ñëwaat parce que temps yi amoo jot sama gars yi dóoleen cloche bi sama kanam gu ñaaw gi génn nga foog ne jeex na muy yëyi saa fii rien n'est éternel nguuru yàlla waa moo gën ngi def fight bu fight bu am solo ci dossier Ndingler bi bëggee bëggee maa ngi ñëwaat Atépa Abdou Ndour tam dinaa si ñëw temps dama xoon bii sama gars yi mais bëgg naa ñi ñu bëggee Malathion yëpp yëpp yëpp bëggee